voilà mbokk yi ñoo leen ko digoon di réaction yi nga xamante ne ñu ngi wéy di ko jël fii nga xamante ne euh, mooy ci Banjul ci quinzième sommet bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel OCI ñu am le plaisir euh, dalal ci euh, réaction yi ki nga xamante ne mooy le ministre docteur Ismaïla Cissé nga xamante ne moom mooy ministre de l'information yàlla def tey ñu fas yéene ànd ak moom ci jël ay impression li nga xamante ne moo aju uh, ci sommet bi biñ ko tàmbalee ak tey liñ ciy xaar ak li nga xamante ne xëy na moo doon discours yi fi jip nu ñuy def ba matérialiser uh, matérialiser ko loolu yëpp incha allah nañ ci ànd ak moom gën ko faram-fàcce kilifa gi ñu ngi lay nuyu xam na ni jot amut mais yàlla def na nangu nga ànd ak ci li nga xamante ne mooy exercice laaj yeeg tontu yi déjà sommet bi biñ ko tàmbalee léegi uh, loo ci retenir ci subaak léegi. jërëjëf di sant yàlla bu baax di gërëm suñ président bi his excellence Adama Barrow di ko ndokkeel si makaama bi nga xam ne tey moom la doon na mooy mooy chairman OEC bi di wane suñ mbégte bu baax a baax a baax di gërëm képp koo xam ne doomu réew mi nga te liggéey nga si mbir mi gis nañ sa taxawaate ñu ngi ko rafetal tamit kontaan nañ lépp jaar na yoon li juróomi at ñu ngi ko préparé teel a jot nag te gis nga li fi xew soxid na ñëpp ñëw nañ dëkk mi nga xam ne mooy Gambie ndaw na si jëmma 2 million moo fi nekk waaye tey boole nañ population de 2 billion people parce que seetee umma bi OIC bi si boppam soo ko xayma yëpp si dëkk yu fa nekk seen population 2 billion people la nga am bu am 2 million mu ñu war a boole ñi nga xam ne mooy 2 billion te di waxtaan li nga xam ne mooy jàmma ak ñëpp mbooloo nekk benn jàppal umma bi taxawal umma bi. daaxal lépp lu nga xam ne dañ koo noot jullit eh, di wax si mbiri Palestine ak Gaza loolu am solo la te kontaan nañ ci torop. Hmm. yaa ngi koy wax teewaayu ñi nga xam ñooy kilifa yi bàyyee ko fu ne am thème bu am solo boo xam jàpp nañ ko unité bennoo solidarité jaarale ko ci wàllu dialogue ngir suqali am suqaliku bu gaaw euh, loolu su ngeen ko waxee maanaam après sommet bi lan moo ko war a gungee ci wàllu jëf. kon lu la ñëw loolu sax tàmmali nañ ko ba pare avant sommet bi di commencé dañ ne la mooy suñ pause sommet stratégie bi mooy su sommet bi jaalee la mooy stratégie bi mooy léegi dañoo seet thème bi comme na ko waxee ñu génne si suñ strategic goals am implementation plan ñu liggéey li nga xam ne moom moo nekk di euh, moo nekk di xew si umma bi ici projet pour jigéen yi projet pour ndaw yi projet mooy ñi nga xam lañ soxla ndimbal amuñ kàttan noonu ba pare gis jàmm sax si umma bi loolu may li nga xam ne dinañ ko dox te su neexee yàlla président Adama Barrow si njiitaala si njiitaayam boobu Gambie dina ko mën a jiite te dina ko dox te dina am. lu ñuy def ci wàllu jàmm ngir Palestine am ko ñu dakkal li nga xam ñu ngi koy teg ci kawam sommet bi ban taxawaay la ci nar a am. taxawaay mooy ñu liggéey ñi nga xam ne commencé nañ gis nga tey euh, Qatar ak Égypte commencé nañ lu ñuy ooyee peace talks euh, su neexee yàlla ndam dina si am Gambie seen njiitaay si si OIC bi dinañ mën a waxtaan ak ñu tamit ñu gis ne jaama am Palestine waaye du jaama rek de waaye jaama mi nga xam ne dina sax ñu gis ne Palestine ñu am seen réewu boppa ñu gis tamit ne euh, invasion bi nga xam ne mooy leen bëgg a rafa bu mu am parce que su amee rek dina mën a isi jafe-jafe yoo xam ne dina sonal jigéen yi ak ndaw yi. buñ ci jigéen ñu ngi jëm ci ëllëg tey mooy premier journée bi xam nañ ci bëccëg bi lan moo nekkoon taxawaay bi ngoon gi également suba ci agenda bi lan la ñuy am. suba mooy xam nga fu mu toll nii sommet bi commencé na depuis ñeenti fan si gannaaw mooy préparer trifiche si na government official si daje nañ def nañ communiqué def nañ déclaration council of ministers seet nañ déclaration boobu nu waxtaan nañ si ba juboo si léegi mooy pour ñu implement ko ñu d'accord si génne li nga xam ne mooy Banjul déclaration moom mooy ñëw ëllëg fekka tey ah, heads of governments and states dinañ si waxtaan ñu d'accord si suba ñu jàllale li nga xam ne mooy di Banjul déclaration suba loolu la ñoo séntu. Hmm. alors ci déclaration bi lan lañ ci war a mën a fekk au-delà de li ngeen junj nii ci li ngeen war a soobu ci wàllu liggéey suba déclaration bi bu Banjul bi lan lay jël en compte. si gën a fës mooy Palestine Gaza moo si gën a fës mooy jaama am foofu noonu jaama bi nga dafa sustainable loolu moom te si lu gën a gaawee tamit. ñu gis tamit ñu améliorer li nga xam ne moo nekk di sonal ndaw yi ak jigéen yi ak population Gaza ñu améliorer ko jël ay jumtuwaay yoo xam ne tey dinañ mën a am access to bi nga xam ne tey dinañ ko waaye lu si gën a fës mooy immediate ceasefire mooy ceasefire bi nga na daga tey xeex du amaat Gaza ak pali eh, fii fii sa face foofu sa biir Palestine loolu moo si gën a fës waaw ak yeneen mbir tamit ñoo xam ne moo nekk di sonal moo du sonal waaye moo nekk moo fës si wàllu umma bi mooy humanitarian aid mooy science. Euh, mooy mbiri ndaw yi mooy mbiri jigéen ñi ak yu bëri yi nga xam ne bu wépp dina nekk foofu noonu waaye lu si gën a fees daanaka mooy mbiri Palestine ak Gaza parce que boobu di su suñ ko dagutee rek su jeexutee mun na wàlla si Middle East bi yëpp te lu nga xam ne nag moo nekk si Middle East bi dina mun a sonal umma bi sonal aduna si yëpp lool lu nga xam ne mooy taxawaay nga xam ne moo si gën a fees gis nañu teewaayu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Sénégal ak Gambie moom daanaka nekkatul ñaari réew benn réew la mu mel ni ci organisation bi pour mbir yi mucc ayib Sénégal tamit des ci ginnaaw. déedéet jàppale nañ ñu ànd nekk ak ñun te ñu ngi gërëm sénégalais ñu ngi gërëm président Diomaye Faye ñu ngi gërëm ki nga ñi nga xam ne mooy peuple sénégalais parce que jàppale nañ ñu taxaw nañ ñu gis nañ ne RTS ñoo nañ jàppale techniquement gis nañ leen fii. ak yu bëri bëri bëri yi nga xam ne xëj na suma xel na ko mën a fàtte ñu ne kii ku lim jum waaye lu ma see mën a wax mooy ne lii Sénégal dañ ñëw ànd ak ñun mel ni seen mbos la kon ñu ngi gërëm président Diomaye fay di gërëm ki nga xam ne moo fa nekkoon bu li commencé mooy président Macky Sall moo ko commencé ànd ak ñun mu ñëw état day continuer moom bu mu demee ba waxtoom jeex yàlla def Diomaye fay Diomaye ñëw si président ne ko ne jëma ji rek moo changé waaye xaritoo gi mbokka bi moo des na fi loolu mu nekk nga xam ne bëggoon nañ si kon di gërëm Jomaay Fay ñëw na fi des semaines si ganaaw mu ñëwaat si some bi kontaan nañ si gis ne Sénégal ak Gambie benn la amul benn xaajaloo ñun suñ mbébét mooy frontière sax bu mu am Sénégal ak Gambie suñ mbébét mooy eh, lu fanaan Gambie mu xëyee Sénégal loolu lañ bëgg a buñ am fro comme xam nga yow sàll mi am ñu sans frontière lañ buga a di nga ne Sénégal ak Gambie kon loolu dinañu ne comme ñu wax ne peuple Sénégal ak Gambie benn lañ dara amul benn xaajaloo ñooy lekk benn façon ngi lekka ñooy seetaan benn façon ngi télésérie ñooy sol benn façon yére ñun ñëpp ay jullit jullit chrétien jullit lañ kon loolu lu am solo la kon di jaajëfal président Diomaye Faye si taxawaayam ak si ñëwam di fal képp koo xam ne yaa ngi Sénégal te jàppale nga ñu si sommet bi ba ci làkk bi sax parce que ni a mandinka ŋo fo aka munta yaa moyle si làkk bi si lekk yi si ceebu jën yi si domodaa yi si mbaxal yi yëpp benn la lusi lusi uh, eh, min droyatinna uh, mi eh, fatam fan so fena senegal gambetima wolon france kangoti ani administration ani loi bawon tol angalelen coloniser ntol nga angalela loi leta ani ila kango ani ila administration senegal france le coloniser e france la kangota français ila administration ani la loi banam woti senegal ngambe abe killing ñu ngi lay gërëm sant docteur Ismaïla Cissé ah may fàttali moom mooy ministre de l' information bu Gambie ñu àndoon ak moom def le point ah, ci bisu tey bi di quinzième sommet OCI fii ci ah, Banjul ëllëg incha allah comme ni nga ko waxee.